amis internet de VIPpeople.net di à mbégte contentement comme ni ma ko tàmm di de saay su di site bi ngeen di VIP people ak VIP info net tey nag mu nekk deuxième numéro de la semaine 100 people ñu leen koy chaque jour qui ay bés yu de di tout ce qui est information people et effets divers ñu tàmbalee dooree ko nag ci actualité people la boo xam ne moom it foofu la xewee ca Las Vegas ginnaaw semaine bi ñu génn nag lépp li xewoon foofee ci bërëb boobee nga xam ne foofu la ñu organiser woon Sénégal Fashion Week bi joxoon nañu leen ko waaye tamit bii nag dañoo ñëw ci xibaar mu daal di concerné nag ki nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy groupe Soleil Levant waaye tamit kenn ci ñoom muy Saneex ñu ne Las Vegas commence à neex à minimiser Pape Mbaye saa neex nag yaakaar naa ne leçon bi nga xam ne sénégalais yi jox nañ ko kon nag mu moqal na ko ba mu moqarum wax ndax jamono ji nga xam ne nag delluwaat na foofee ca bërëb boobee di Amérique waaye tamit diwaanu Las Vegas bi mu fa dajewee ak Pape Mbaye xoolu ko sax waaye tamit nuyuwu ko jàmm santewul gëstuwul sax daal di xool ki nga xam ne moom moo di Pape Mbaye xanaa ki nga xam ne moo di. Pape Mbaye moom moo fa nekkoon nag di len waxal sen baxuma way tamit di profito di avertir sénégalais ni mom invité wu fa ñom sa neex bala ñu koy sosal moo geet moo leen fa invité mom nak cadre yoy la daal di joxe mom pap mbay waye lim ci mënti wax ak lim mëna rectifier yëpp sa neex xoluko ko wu ko taxawul sax fi nga xamné fofu la pap mbay taxaw mu nekk nak lo xamné nak nag sénégalais rafet lu nañ ko bu baaxa baaxa baax nak def erreur daal di baalu nag. Euh, ñëpp la war. Ah, buñ jigee ci loolu ba tey ci suñu actualité people du net dañuy daal di nag euh, dugg ci làmb ji daal di doxantu nag foofee ba ca écurie Fass waxtaan nag ki nga xam ne moom moo nekk euh, troisième tigre de Fass muy Gris Bordeaux Gris Bordeaux nag jamono ji dafa am ak problème ak promoteur bu mag boobu di Gaston Mbengue dernière minute Gris Bordeaux convoqué à la brigade de recherche mu hamne information selon l'observateur qui vend la mèche dans sa livre son du jure Gris Bordeaux est convoqué ce matin à 10 h à la brigade de recherche de Federbo. pour la nous ñu convoqué comme mooy que ni contrat lié promoteur de lutte lutte bi di Gaston Mbengue te Gris Bordeaux respecté wu ko jotoon na encaissé chèque gu 10 te boobu ba léegi xamuñu lan moo tax delloowul chèque boobee kii borom di Gaston mbeng lu ci mënti am nag Gaston nag daal dina fipp porte ko

bañ leen ko fekkee nag ñu ngi leen fekk ci anam yu doy waax ndax ñu ngi leen fekk ñoom góor ñi ñu sol ñi sol robe ñi sol jupe waaye tamit ñi def haut ñi pantalon di waajal nag célébrer seeni mariage

li nga xamné ay 27 produits lubrifiants la yi nga xamné yoyu xalé xale yu jigéen yi ñoo faral euh, di utiliser fekk nañ fa ay test VIH euh, sida fekk nañ fa aussi ay euh, maquillage yi nga xamné ne ñi ñoo utiliser ay pose ak des savons yi nga xamné euh, sénégalais que jigen ñi ñoo faral di utiliser mu nekk nak lo xamné doyna doy na ba fu doy war yam nak mim rew nak jamono ji nak war nañ ci wax nak doy na chaque jour rek bo xé rek dégg musiba narul lay, bu gëna rey

niveau boobu nouveauté bi la moy que ni appartement meublé fofé ci Nord Foire chaque fois que buñuy filmer buñuy tourner vidéo yoy appartement bobo la faral di dem tourner li ñu tourner yu bon yi nga xamné koy euh, clé tamit def ko ci li nga cinquante francs Nak découvrir nañ les mettre sous mandat de euh, dépôt inshallah nak euh, semaine prochaine lañ di euh, juger fofé kanamu ba tey ñu daldi ñëwaat ci seen actualité fait divers du net gin bi nak gannaaw bi mu defee woon buzz semaine passée nak jamono ji nak mu ngi benen ci kan polémique kan la muy Ndella Madior Diouf des gor jigéen lesbiennes veulent détruire Ndella Madior Diouf lool nak la ñu xamale tay ci suba gannaaw bi nga xamé ni jakarlo na woon nak bi ju fofé ci tv daldi nag démentir li nga xam ne moom lañ ko daan jiiñ muy lees lesbienne gi mu ko démentiré nag ba pare def ci teg ay kàddu mu ne moom dafa bëgg góor dafa gëm góor moom du góor bu dëgërul sax du wax ak yow moo boobu nag metti ñi nga xam ne ñoom ñooy lesbienne yi waaye tamit metti ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy góor jigéen yi ba tax ñu koy saaga di ko gas di ko yàq lu mel ni xeme ci biir réseaux sociaux yi mu nekk nag loo xam ne ñaawlu na ko ba lu ñaaw yem ndax avem la am na droit tamit défendre taxul lesbienne yeeg euh, góor jigéen ñi daal di jukk bëgg a dal ci kawam. Ah, bu ñu jigee ci loolu ñu daal di demaat ci beneen actualité ah, fait divers ba tey ci mim réew nag la xewee xewewul feneen fudul la ah, fii ci Sénégal njaay li fi xew nag chaque jour rek muy jéggi dayoo ba fa jéggi dayoo yem xam naa nag ñàkkul ne dafa am jinne bu ñu bu ñu wala tamit dafa am lu ñuy xabtal daal ba tax ñuy def yenn yi kii nag benn femme nag moo dal di def confidence bi moom nee na. grave révélation d'une employée domestique sama patron daf may invité négam di ma def naka su dul mu nek nak lo xam doyna war ba fu doy war yam xale bu jigen bi nak moy wax ba tay mom daal neena bim doon ak waji waji ko japon au début comme sœuram lu ne la ko daan defaral lu ne la daan may nak ñom ñaar rek nekkon ci appartement bobu te mom dafa doon fanaan ñu jékki-jékki nak neena mune la ko daan offrir ba mu daal di jëy jël xaalis di ko may ne ko yónneel sa waa dëkk sa yaay ma ca dëkk baag sa papa di leen ko may ba famille bi yépp daal di ci kontaan waaye yemul foofu fi mu yem ak moom nag mooy premier jour bi dafa ñëw nag waa ji muñ na koo muñ munatu koo muñ mu ko nag dama laa nopp te bu ma sañoon nag ñu nekkal ko ci ndax yàgg naa la loo mu nu ko wax xale bi jigéen bi nee na au début dafa doon bañ waa ji continuer ah, di ko convaincre di ko convaincre di ko convaincre ba mu nangu ah, mu gi nag waa ji daal di ko ci dëkkal chaque jour ñu nekkal ko ci rek ci seen li leen neex nekk ci li leen neex saa su nekk bu ñu xëyee nee na parfois sax ah, dañuy mel ni ay jëkkër ak jabar ndax lépp li nga xam ne rek jëkkër ak jabar ñu ngi koy dund ci seeni néegu sëy ñoom ñu ngi ko doon def ci biir kër googu nag nee na nag dafa muñ ba mënatul muñ mu daal di daw nag genn këram ndax nee na waa ji moo ko pervertir xamul woon dara xamul woon lu dul la xëy liggéey wàcc ñibbi këram yónnee ay waajuram mais waa ji daal ah, pervertir na ko ba pare naka jamono ji mu jaaxle ak ah, teg ko nag ci ay conditions yu metti doy na wax ba tey ñu ñëwaat rek ci seen actualité people les nouvelles révélations fracassantes de Ndoye Bane sur le mari de Mbathio Ndiaye Ndoye Bane waxatina na comme ni ko tàmm di defee rek mom nee mom ragulul wax dara it nax réew mi bo fi nekkee di ragalé waxé do avancer way tamit dañ lay jappé na fekk té mom du naa fekk mom nak limu mu waxaat ci jëkkëru Mbathio Ndiaye nee na nag tur bi nga xamné ne daal dina ko signalé muy Baye Niass Ndiaye tuddul noonu sono nee na non seulement tuddul noonu ah, ba pare mu ngi jël ay millions et des millions daal di ko may warugal Mbathio Ndiaye te rakkam bi nga xam ne moo topp ci moom mu nga ca prison ba génnewu ko jàppalewu ko mu génn ah, ñu ne déddewaay daal nee na waajuru ah, ku jigéen ki waajuru ku góor ki du moins di bërëm këru Mbathio Ndiaye moo it daf koy naqarlu da koy mettitlu ndax bu gisee doomam jël alal ju bari jooju may ko xale bu jigéen te rakkam a ngi ci prison bi bu ñu tëddee du ñu nelaw ndax am naqar bu nekkee di def progrès ci miim réew da di jaaxal ba fa jaaxalem di samay kàddu nag ndoy baan mu daal di génnati daal di xamle li ni mel

mineur de huit ans mu nekk nag loo xam ne doy na waar ba fu doy waar yam sàkku yi mu ngi gën a bari ci mim réew mu ngi gën a sakkan ci mim réew te ba léegi dégguñu benn autorité wax ci wala ñu jël ci matuwaay bu mat sëkk kenn xamul nag ba xam suñuy ndaw yi xale góor yi feebar moo leen jàpp wala tamit jinne wala rab moo leen dugg waaye lu ci mënta am daal mooy kane sàkku yi ñuy sàkku nag xale jigéen ñi bari na rawatina nag ñi nga xam ne ay mineur lañu tout tout temps que ah c'est des enfants de rien du tout nous leen di nous avons jëf yu buñ jógee ci loolu nag ñu daal di ko tëjee actualité fait divers bi nga xam ne nag mu nga xewee foofee ca France France nag li fa xew day na waar ba fu day waar yem ñu ne France en Sénégalais tué par balle ba léegi nag sénégalais diaspora yi ci seen kaa lañ fay nekk ndax chaque jour nag jamono ji nag meurtre yi mu ngi bëgg a bari nag jot na nag mu jeex nag nañ ci wax mu jeex parce que tamit heure boo xëyee dégg meurtre heure boo xëyee dégg.

Un Sénégalais du Nord de Alassane Kanté, 22 ans, a été tué par balle Munek nekk nag loo xam ne doy na waar ba fu doy war yem koku nak liñ ko ray nak ben moromam la joteloon fofé ca Paris mu daldi jël pistolet rek ne ko ci tuy li leen boole nag dinañ ci ñëwaat ci détails yi voilà c'était votre émission 100% people avons un mbégte ak contentement Nous leen ko jagleel say su ne ci seen site bii ak vipinfo.net euh, tout ce qui est information people et fait divers di am ak contentement doon jàkkaarloog yéen say su ne di leen jox dig ci même heure.